Ndiaye di waxtaanee lu jëm ci actualité nag bu soxal ñëpp muy loolu ñu naan droit à l'image may Euh, ni nga ko waxee noonu la Fati maa ngi lay nuyuwaat. Euh, droit à l'image ni nga ko waxee euh, fan yi ñu génn. Mhm. dégg ngeen ko lu bari bi ci mujj mooy soxna si nga xam ni dañoo wane ay image mhm. ci anam yoo xam ne dafa ñaaw rafetul ba ñu bari daal jëloon combat bi looloo tax nag ak yeneen yoo xam ne nemmeeku nañu ko mu ay dérive mhm. moo taxoon ñu samp laaj bi droit à lan lay tekki. lan la la yoon may. ak nan lañ koy lijjantee daal ak kuréel yi nga xam ne ñoo ci Maymuna Ndiaye def jàngat bi bi ci ànd ak ku naan Youssou Baro dellu siwaat léegi léegi ci plateau ay nataal wala sax ay vidéo yoo xam ni dañ koy jaarale ci xarala yu yees yi te amuloo ci benn yoon dogal léeg-léeg ci anam bu ñaaw lañ koy amalee ñi koy def dëgg-dëgg ndax xam nañu lu mu sa nataal mbaa film bu def ci yow sa kanam di ci feeñ yow sa moomeel la euh, alors comme sa moomeel la waruñu ko jëfandikoo te yow àndoo ci euh, loolu moo tax ñu ne euh, c'est une donnée personnelle donnée personnelle mooy la nga xamante ne dafay tax ñu xàmme la ñu xam ne yaay kan. ñu bari mu topp leen ba léegi gëstukat bi di ko firndeel. image bu xasee ba génn ak rapidité de diffusion bi mën nga toll fii génn dara ku toll Australie yëg ko beneen affaire mooy. tey dafa bëri euh, ñoo xamante ni dañoo gëm ni euh, feeñ moo leen di tax a yegg euh, ak jot li ñu bëgg. looloo tax kuréelu avocat yi nga xam ni dañoo gën a féete ndaw def ab say di taxawu ñooñu nga xam ni dañu leen a tooñ. yooyu boo amee surtout pour jigéen boo xam si jigéen dañ ko toroxal ñun dañuy association bi d'habitude day jël ay avocat yoo xam ne si dañuy dem taxawu kooku nga xam ne si mooy mooy doon victime bi parce que association jeune avocat day. liggéey ay kuréel yoo xam ne si dañuy défendre ay cause jigéen ñu mel ne ay AGS ay réseau Siggil Jigéen. bu weesoo taxaw bi yoon dafa tegi daan. entre un an cinq ans amende cinq cent mille ba cinq millions maintenant juge bi dina seet circonstances yi ni mu deme man na sax jàpp ne xëy na euh, nit ki ko def nit ki ko def. xëy na amuloon bu ñaaw. sociologue bi yokku ci yile tegtal. première chose mooy ñu yaraat nit ñi te yar si famille lay commencé yar si famille lay commencé ñu jàngale ay valeur wan la ni yow euh, nit koom nga déjà avant dara di xew ni nga war a fonke sa xaalis wala leneen loo loo investir noonu nga war a fonke sa bopp sa image. man j'ai été frappé une fois sama benn étudiant ni Euh, monsieur est-ce que xamoo ko ji nekk euh, di génne ay séeréer yooyu parce que dama bëgg ci man ko mais yow nan nga mën a jàng ba toll yenn kii pour yow sa réussite si loolu la jaar donc c'est très important ñuy soññaat xale yi gëmloo leen effort pour le travail. ñu bokk benn kàddu bi bu ñu sañoon daan ñi nga xam ni moo jëm ci wàll wi dinañ ko gën a doxal. ñu topp ko te du am benn yoon xajj ak seen. Maimouna Ndiaye ci droit à l'image ak euh, gëstu bi nga xam ne def nga ko ci. Euh, ni ko waxee gëstu bu yàlla parce que dafa soxloon ñu bëri. Euh, ñu ci dem demee ni ay mortal ak ay ñu bëri fii doon ma laaj euh, droit à l'image moom kañ lañ ciy ñëw. Mhm. loolu gën a tax tey sujet bi ñu indi ko. Mhm. di am yaakaar ni niñ ko posé dina neex nit ñi. justement Maïmouna droit à l'image sax fan lañ ko mën a tënk fan la la yem mhm. te des fois da gis. benn dem dugg ci contrepartie sàcc fa photo def taf ko yooyu yëpp est mën nañ ko ci boole. Cheikh Tidiane euh, droit à l'image euh, dafa am loo xam ne dañ ne nit ki moo ko moomal boppam mooy intimité euh, mais terewul yow boo demoon fi mu ne nii ci manifestation boo xam ne ñëpp dañ fa dajaloo. Mhm. nga dem bokk ca benn Youssou Bara wala Jafara ba ñëw daan lay jël. Mhm. vidéo ba buñ ko jëlee teg ko fu nekk yow. waroo mën a ñëw di kaas fenn parce que da nga da nga ci bokkoon ba nga demee yaag ñeneen la foofu waaw nga dem reportage wala doxu ñaxtu nga bokk ca participer ci ba pare naan sama nataal dañ koo génne wala vidéo bi nii laa ci doon def xam nga boobu bu boobaa yoon da koy dàq mhm. am na beneen boo xam ni ci exception yi la bokk maanaam nga nekk homme public nekk kilifa benn Ousmane Sonko Idrissa Seck wala keneen waaw nga def sa meeting mhm. caravane moo xam loo fa wax mhm. nga ñëw taxaw taxaw ci télé bi ne waruñu woon jël parti bi fii waruñu ko woon a teg mhm. ak yu demee noonu mhm. euh, yooyu tamit bu ko defee day bokk ci exception yi mhm. am na beneen exception boo xam ni maanaam événement historique lay doon comme président euh, réewu Amérique mën na fee ñëw ci kaw visite bi mu am fu mu dem dem yenn sites yi. bu ko defee euh, caméraman yi daal koy jël jël ay vidéo peut-être ak ay njabootam ak yeneen ñu nu mel. foofu moom warul ñëw ne image yi dañ koo jël jaarale ko ci réseaux sociaux yi wala nii foofu moomu ko mhm. loolu dafa bokk ci exception yi mu ñetti exception yoo xam ne dañ koo dàq bu weesoo loolu nag euh, li si des yaa ko moom a sa bopp mhm. très bien euh, laaj bi may laaj également mooy bu fekkente ni xale yi la xam nga danaan protection des enfants surtout bu fekkente ni seen image da ci euh, bu nekkee surtout si situation bu dégradante loolu lu ci loo wax mhm. bu fekkee xale yi la foofu lañ fa wax leer na bu boobaa waajur yi ñoom ñooy bind dañuy bind nag du ñu ñëw rek wax ne bu ko jël buy jël xale bi tout tànk la da ngay bind këyit boobu nag moo lay may xale bi duñ ko jël vidéo bi kenn waru koo gis fenn mm-hmm. ndax buñ ko gisee mën nañ la cee topp comme niñ ko defee ci xale yi ku faatu tamit euh, waajur yi euh, famille am am na droit aussi ne vidéo bi bu leen ko jël mm. bii ak bii bu leen ko jël ñaar yooyu yëpp ñoo ñoo ñoo ci bokk yam ah, may beneen question rek muy euh, xam ngeen dañuy wax commission de protection des données muy CDP ñi ngi fii ñi ngi def itam seen ñi ngi bay seen waar mais ndax am nañu outils yiñ soxla ngir mën a matale seen ab liggéey mm-hmm. wax ni nga ko waxee Fadi commission bi mi ngi fii ci atum bi mu ñëwee dérive yi nga xam ne dañ ko nemmeeku ci réseaux sociaux yi ak yu ni mel ci espace médiatique bi dafa ñëwoon pour corriger jubbanti bu baax mhm. mais bi ñu demee ba ci biir li ñu seetlu rek mooy ci euh, biir régulation bi dafay des maanaam lu demee ni logistique bi mhm. ak euh, vidéo bi bu jàllee automatiquement ñu daal koy retirer mhm. loolu tamit euh, jumtuwaay yi moo demeegul noonu ba nga xam ni ñoom duñu mën a liggéey bi ñu daal koy yeggale ci kaw loolu daal dafay laaj peut ay réforme am na ñoo xam ne ñu ngi yëngatu xam ni moo leen may mhm. réforme institutionnelle lañ ko wax moo leen di may tey jii mhm. euh, ñu xool xoolaan affaire yi nan lañ koy lijjantee parce que commission bi war nañ ko gën a dooleel parce que liggéey bi dafa am solo te am na ñoo xam ni affaire yi daf leen di topp mhm. euh, sociologue bi mi ngi koy wax ki nga xam ni dafay euh, gëstu ci wàllu sociologie di ko jàngale moom it ci biir élément bi am na fenn fu mu ko waxee ndax yu demee nii dafay laaj taxaw gis ngeen ko soxna bi ñu wanet fan yi mm-hmm. ñu bëri doon poser question bi ndax kii tamit ëllëg affaire yi du ko topp mm-hmm. ak yu demee noonu mm-hmm. doy day laaj yu mel nii commission boobu bu waxee wala mu bind day laaj famille bi ci mm-hmm. boppam daal di ñëw réparer li fi jotoon a xew ne affaire yi nii la demee demeewul woon nii mm-hmm. bu ko defee ñoom euh, ñi nga xam ne ñoo tooñ mën a ñëwaat euh, excuse wu parce que xam nañ société bi mm-hmm. euh, tooñ ak balu ñoo ànd toujours tuuti rek sax keroog vendredi jàkkaarloo am na benn soxna boo xamee ni fa la nekk mi ngi ñi ngi ko invité mais mi ngi naqarlu quand même seen budget ne nañ budget bi ñuy fonctionner dafa ndaw trop trop trop trop te sénégalais yi xamuñu bu baax euh, njëriñu kii bi. CDP euh, te dafa laaj quand même tamit ñoom tamit ñuy communiquer nit ñi di leen xam. parce que ñu bari dañ leen di tooñ. Mm-hmm. te duñu am fu ñu ko clamer. waaw loolu nga wax euh, dëgg la commission bi. naam mi ngi fi 2008 ba léegi mais li leer ba leer mooy ñu bari xamuñu ko. Mm-hmm. dafa laaj nag pour ñu ñoom ñoo ñooy génn seen bopp wax askan wi ñoom lan moo leen tax a jóg. Mm. ku ñu tooñ lan ngay def pour ñëw si ñoom. vidéo ban ak ban moo ci bokk. nga xam ne day nekk organe boo xam ni euh, c'est complet dina faciliter nit ñi ñu xam ñi xamul woon xam euh, ainsi de suite ainsi de suite. très bien laata Aminata Mbaye Sow di di di jël cadre rek Cheikh Tidiane foofu ngay wax ci euh, protection des données droit à l'image damay gis kenn koo xam ne ci réseaux mm-hmm. sociaux ku tudd Jéegi Diop. Mm-hmm. je crois yéen ñëpp xam ngeen ko mais def aussi benn day def bu am solo. Mm-hmm. nit ñi bu ñu publier photo jàmbur wala ñu commencé toon tout le temps damay gis ay commentaires am. attention attention parce que dina am leen ci mën fekk donc je crois que c'est mm. sensibilisation bi mu liggéey bu am solo parce que moom la jaawoon di vendredi jàkkaarloo donc tout le temps jéegi day taxaw di wax def leen ndànk attention donc nit ñi du ñu bàyyi xel ci message yi message yi muy jàllale je crois c'est très important donc par rapport loolu may mun a yaa ngi koy wax sànq ñi nga xam ni euh, dañoo victime maanaam dañoo exposer seen image l'exemple de cette dame mm-hmm. est-ce am na ay assistance boo xam ne dañ leen koy apporter pour peut-être ñu mën a supporter coût boobu. Euh, fu mu nii li leer ba leer mooy euh, bu affaire yooyu bu amee yow sa famille rek moo lay accompagner. mais ñi nga xam ne ñoom dañuy gëstu ci wàllu société bi comme enseignant bi ma jël muy gëstu di ko jàngale euh, li muy bëgg rek mooy assistance bi mu nekk loo xam ni dafa complète maanaam ku nekk da ciy bay sa mu nekk ñi nga xam ne ñoo tooñ ñoom it dañoo war a ñëw bay ci seen waar mu nekk commission boo xam ne tamit beneen commission boo xam ne ñoom it dañ koy accompagner parce que loolu dafa nekk étape boo xam ne dafa metti pour nga ñëw rek daal ciy jàll euh, du yomb sa famille war na la jàppale am na euh, sociologue boo xam ne wala psychologue boo xam ne dina la accompagner nga xam ni di nga dellusiwaat daal ndax du yomb même bu ñu la tooñee mhm. ñu ñëw réparer ko noonu du yomb parce que coup bu metti la la ci sa dund très bien euh, Maimouna Ndiaye Cheikh Tidiane nag ki bëggoon sànni kàddu je pense euh, non nañu nañu baral affaire mu ngi nekk nii <laughs> dañ ko doon euh, <laughs> jaajëfal Chérif Samba dem taxawee <laughs> Chérif Samba